dox na ak tànkam ba ci kër gi. dox na ak tànkam ba bu tedd ba ba ci biir kër gi. fii ma toog. Sëriñ Saal nee na fii mu toog. Sëriñ Saaliwu. Sëriñ Saaliwu Mbacke. ganase na fi Sëriñ Becc. ganase na fi Sëriñ Becc. kon xam ngeen ni fii. nee na kon xam ngeen ni kër gii dey barab bu barkeelu la. barab bu barkeel la te barab bu barkeelu la. barab bu barkeel la. barab bu barkeel la. barab bu ba ñuy barkeeloo. barab la bopp bu ñuy barkeelu la. ba tax na. ba tax na kon. bu ñu màggalee ba ci yoor-yoor. suba ba ñu bu ñu màggalee ba takkusaan. nee na bu ñu màggalee bu soobee yàlla incha allahu rabbi ba ca takkusaan. te suba ga ca takkusaan. te suba ga ca takkusaan ja. amal naa fii. nee na amal na fi. woote. ab woote. woote di ma fi woote. nee na woote mi fi woote nag. maa ngi koy woo universel yëpp. nee na mi ngi ciy woo jëriñ universel yëpp. di ci woo taalibe yi. di ci woo mbokk taalibe yëpp. di ci woo jëwriñ yi. di ci woo jëwriñ yëpp. di ci woo képp ku di cantaako. di ci woo képp ku ndax. dañuy daal di sos kër gi. ndax dañuy daal di sos kër gi nag. tàmbalee. tàmbali tabaxaat kër gi. tabaxaat kër gi. jërëjëf Thioune ndax da ko yéeneem. ndax nee na yéeneem kat. moo taxoon laata mu fi jógee. laata mu fiy jógee moom sëriñ bi. bâtiment bi fi nekkoon. bâtiment bi fi nekkoon. mu daaneeloon. mu daaneeloon kon ndeysaan. bëggoon koo yeesalaat bëggoon koo yeesalaat. yéeneem joojee. nee na yéeneem joojee kat. moom laa bëgg a mot. nee na moom la bëgg a mot. jëf tuuti waaw jëf tuuti waaw jëf tuuti loolu waay. bëgg nee na nag bëgg koo àndandoo ak mbokki Assane Fall Dia. Assane Fall Dia. il jëwriñ universel. jëwriñ universel. Ousmane Fall Sarr. Ousmane Fall Sarr. jëwriñ universel. jëwriñ universel. Serigne Ibrahima Kouaté. Serigne Ibrahima Kouaté universel. ñoom ñëpp. nee na ñoom ñëpp. Mamar Ndiaye. Mamar Ndiaye. doon ingénieur bu Serigne. doon ingénieur bu Serigne beeg. daan ko tabaxloo kër gi. daan ko tabaxloo kër moom laa bëggoon. nee na moom la bëggoon. jëwriñale leen kër gi. jëwriñale leen kër gi ñoom. bu ko defee. bu ko defee kat. ñu ñu ñu dox def ko ay pàcc. ñu def ko ay pàcc. non nee kër Serigne Saliou gi bindoo. non nee kër Serigne Saliou gi bindoo. ñu def ko ay kees. ñu def ko ay kees. keesu diw. keesu diw. keesu diw. keesu diw. mbaarum diw. mbaarum diw. keesu diw. keesu diw. ba mu mat. ba mu mat. jërëjëf jërëjëf. maa ngi ciy woo Cantakun. nee na mi ngi ciy woo Cantakun yëpp. pose première pierre bi. pose première danañ ko def. sëriñ bi nee na dina ko def. bu ñu màggalee. bu nu màggalee. ba ca ëllëg sa. ba ca ëllëg bëgg naa déwén. nee na bëgg na déwén day.